ndogal bi moo bàyyeeko ci gouverneur bu ndakaaru bi nga xamante ne moo tax ba commerçant yi daati mer ba futtu ñoom ñi nga xamante ne ñu ngi ci marché syndicat bu Pikine ca talaata ji daanaka defatuñu benn liggéey ci seeni commerce yi ngir rekk mën a wàcc ci mbedd yi organiser ab assemblée générale ngir ñawlu li nga xamante ne loolu la gouverneur bu ndakaaru daal di wax jaarale ko ci communiqué. jam ñaajo camion yu ndaw di ko yëpp di indi fii te bu boobaa dañuy fay foofa benn nit sax bu fa duggee day fay deux cent loolu nag fourwe attanu ko dañoo waroon bala ñu koy def ñu waxtaan ak acteurs yi fourwe yi waxtaan ak acteurs yi lajum yi nun nag ci réew mi la ñu bokk bu ñu bëggee wañ sunu loxo def na loo xam ne lii dañu yàq suñu liggéey nit ñi torox dañu ko nangu. mais bu ñu xëyee xëy ñi dañuy jël nit ñi à partir de minuit benn oto dootu rombati jam ñaajo léegi loolu li mu li mu yàq sax ñoom xamuñu ko. benn arrêté bu gouverneur de la région def arrêté le le 27 lañ ko bind ne dañ ko appliqué le premier janvier 2024. le gros véhicule boo xamante ne dafa jóge sous région bi wala biir mu jóge biir Sénégal bu ñëwee jam ñaajo lay yem bu yebee fruit wala lijum te jam ñaajo ñun arrangé wuñu li tax arrangé wuñu mooy marché ba ñu fa def defuñu ab syndicat. am marché la ñu def ñoom di wut seen i cantine di jaay cantine yi ne ku fa jël place da ngay jël fay cinq cinq cent mille francs par mois ou bien huit mille par mois wala quatre cent mille francs par mois euh, loolu arrangé wul borom fur wi commerçant yii lee gannaaw ba ñu amee nakaru xol ba ñu yëgee nii am na communiqué bu bàyyeeku ci gouverneur bu ndakaaru bi dàq bépp transport bi nga xamante ne daañu koy jaarale ci camion yi indi ko ci marché yi ndax lépp dañ koy yóbbu foofee ca jam ñaajoo yaakaar ne état bu fekkee dafa bëggal dara dara dara waa waa fruits yi ak waa légumes bi bi kere leen dara ñu oo waxtaan laa ñu lan mooy suñu xalaat ñu wax li suñu xalaat bi ñu def def bu ñu bàyyi bàyyi moo ko waaye doo toog fee sa ruq rek jël say transporteur jël say quelques commerçants dugal leen sa ruq wax ne ne ne lii laa bëgg a def furu bi même boo ko yebee Tamba gi wàcc ko Kaolack képp mu yàqu destination par destination la furu di wàcc bëggul nag ñu def ay entrepôt yi seen entrepôt yi bu ñu koy def ñun taxuñu woon kon nag bu ñëw ba léegi xam ñoo fa tax ñu koy dañuy lànk secteur bi fruit soo ko yóbboo jam ñaajo sur fruit yëpp day jógee sous ci sous région bi lay jóge Mali Nigéria Côte d'Ivoire Guinée ak ci région bi Casamance tey furi moo nanguwul furi moo nanguwul yéegal wàcce furi soo koy tegee ci camion même bu paanee dañ lay wax eh patientel fii ak 24 heures pour mu jéem a dépanner dem mais soo ko wàccee teg ko ci suuf wala nga wàcce dugal ko ci am ñun suñu furi yi buggul frigo ci situation biile tablier yi nekk ci marché syndicat di woo autorité yi ngir ñu xoolaat bu baax a baax décision biile. parce que état bu wu ñu waaye xam na ne ñun am ne solo ci réew mi xam na bu baax na ñun. dañuy contribuer si caisse état bi chaque semaine par par véhicule à Kidira plus de 350 multiplié ko par un mois multiplié ko par un an combien de recettes la ñu dugal si état Sénégal kooku tey nga bëgg a tey taxaw rey ko tey. boo demee Notto Nguy Jama ñaar nit ñoo fa nekk di liggéey. kilifa wax ñu gouverneur dogal yu mu taxawal te defe naa nit bu ngeen bokkee dara bala nga cey jël ay masir war nga leen a woo laaj leen ba xam dina leen arranger wala du leen arranger. parce que ñun du ñu n'importe qui ñun ay chef entreprise lañ ñi nekk fii si syndicat bi ak ñi nekk si àll bi képp ku nekk fii syndicat yaa ngi yor fukki xale yoo xamante ne bu ñu xëyee ci saroon la ñuy nekk. maa ngi lancé appel état bi yëpp ñu wooñu ñun ñi nga xamante ñooy acteurs yi nga xam ne ñun la concerné ñi jaay fruits ak légumes ci Sénégal 14 régions yëpp ñu waxtaan ak ñun ñu feet solution waaye li wétu wër mooy oto ma boo ko teelee jam ñaajo dana yàqu. da nga lor borom. buñ ñu wooyee ba ñu dem danañ am consensus ndax jàpp naa ne ñoom réew mi moo leen ñor population yi moo leen ñor kon damaa jàpp ne bu ñu woowee bu ñu dee bu ñu waxtaanee danañ xam ne ñii ñooy dund lii ñi ñi doon wax ak ñoom duñu tekki wuñ daal ca ca ca marché yi ñu nekk bu dee ay marché lañ jóge wala bu dee ci ay bureau lañ nekk tekki wuñ fa dara. loolu moo tax kii ne leen na ngeen waxtaan ak ka ak acteurs yi ba déggoo ak moom ñoom nag dafa mel ni dañuy naxante. ngir sàkkal pexe xaalis bi toj marché bi wàcc ko fi comme nañ def sànd Sandaga duñ ko nangu. bu ñu sukkandikoo ci ñooñee su fekkente ne nguur gi taxaw na tem ci décision le ñu bëri ci ñoom daañu ñàkk seen liggéey te it ay jeexital yi daanaka du neex ci commerçant yooyu le. ne président de la république maa ngi koy lancer appel ndax moom daf ne émergent la woote kenn nag di ay emploi di wàññi ay emploi te damaa jàpp ne bu ñu yóbboo fa nga xamante ne ñun dañuy daan seen doole. Euh, euh, moom day wàññi suñu emploi bu boobaa mën nañoo dem ñibbi te ñun loolu arrangé wuñ tey arrangé wuñ suba. chaque semaine cent oto dana fa jaar oto bu nekk dana fay trois cent quelques mille ñaata la ñu dugal ci réew mi le président am ci lu leer nañ ñu def ko at léegi nag kooku nga bëgg a nasaxal rey nga réew mi bu ñëwee fii ñaata ñun moo siy jëriñu nga bëgg ñoo rey rey ñooña kon yow li ngay wax newul ci ñoom emploi bi ñuy wax emploi bi ñuy wax nekkul ci ñoom terewuñ benn emploi dañuy rey emploi gaal yi gars yi di jël daa bëgg mu continuer kon buñ mu dakk dañoo bëgg mu continuer parce que ñun ñëpp ay ndaw la dañuy liggéey bu ndee mënuñu liggéey Sénégal dañuy jël gaal dem à l'extérieur naka noonee ñoom jaaykat yi le di dànkaafu nguuru Sénégal bu fekkente ne gouverneur delloot si ginnaaw ci ndogal bi nga xamante ne moom la jël daañu sumb ay grève waaye it dakk bépp activité bii ñu amal lu ko mooy li ma leen waxoon rek dañuy paralyser le secteur dinañ paralyser Thiaroye euh, légume dootul dugg pendant deux jours Pikine fruit dootul dugg pendant deux jours Castor ak les autres marchés bëgguma fi lim di jël temps bu boobaa la Joola bu boobaa dinañ bloqué camions yi parce que ki wax ne moom moo représenté eh, transporteurs yi sa monsieur Gora Khouma bi ñëw di wax négocier na ak le gouvernement négocier na ak le gouvernement ba négocier na ak le gouvernement ba nga xam ne keccax sax bàyyi nañ ko muy dugg ak feer ak ciment ñu téye fruit sa monsieur Gora Xuma représente rien pour nous. chauffeur exigé wul ñun ñoo tax mu exigé parce que ñooy fay chauffeur chauffeur musuñu defal taxe si yoon bi taxe boo booy dem si keesu nguur rek ñun ñoo koy defal suñu bopp te fruit yi nen sax a ko gën a garanti parce que fruit mënul dugg si chambre furaat kon lii duñu ko nangu tey duñ ko nangu suba duñ ko nangu gannaaw suba parce que arrangé parce que fruit bi bi indi fruit bi fii kon nag joxe bakkan benn la suñu faalewul ñu joxe suñu bakkan ci loole laata ñi abal ab waxtaan ak nguuru senegal mesure bi dugg na depuis ci benn fan ci weeru janvier atum 2024